da nga foogoon ni yow rek yaay gagné <laughs> Abdou ak Wave ñëppay gagné ñëpp nag. ci koor gi fay leen fu leen neex ak seen QR ko Wave gagné ci saa si ay xéewal yu bëree bëri boo scanné rek gagné nga Wave sa xaalis yaay boroom. saveur. ngi de boroom kër jéegi macha allah. waaw waaw toog nga fi <laughs> moom dégg naa ñëpp yow la ñuy wax. waaye lu la indi waa Thiès nag numbe ah xam nga foofu moom liggéey bi dox na fa jaay diw bi. macha allah waaye sëy mooy farata. waaw sëy lépp nag. Mhm. sëy yooyu lépp mooy mhm. def gën la nag. def noonu la. Mhm. sa bopp. góor am na noo yombee ci moom rek. wala dalay fawee ngelaw la lay def. day jàpp ne xoolal. tu es déjà acquise à tout moment dalay toroxal hmm? mais gis ni ñu nii nga dem toog wut sa njaay wut sa complexe macha allah jéegu Dakar yëpp di daw si gën sa ginnaaw la ah? dee jox diw ndax mënoon ngaa jóge si sa sëy bii dem Dakar di weer merci ba teg zéro dangaa ubbi sa complexe de def lu baax di ñaw say ñaw yu baax di defar say diw jéegi ñëpp kenn xetandelleetul ndax yow say diw yu baax macha allah yow nag jàmm rek ngay am yow nag may teraal <laughs> dëgg neexu tey moom jàmm moo ñu fi indi moom mhm. doxu jàmm waxtaanu mhm. jàmm mhm. waaw dëgg ah, neexu kontaan ndax yow exemple nga ci jeeg jëpp nag koñ bi ba nga fi génnee ba léegi dafa af hmm. ndax togg yu baax yi ci lañ ko xame sañse yu rafet yi ci lañ ko xamee hmm. téye sa jëkkër moom moom moom ko noot ko hmm. ba dërëm sa daalul génn ba nga fi nekkee waaw wow mais nag kontaan naa man xoolal kopp si ma si may keroog <laughs> dégg la <laughs> ko ci macha allah dégg allah kontaan naa lool si gis leen. ñun la mais yéen da ngeen a gën a juwaan nday yow sa lan la. kenn xamul. daal lu ñu saf la ñuy def. ñaan nañu tey baasam def tireenam bu gudd. koor gi <laughs> ah, nii na la nii na <laughs> ah. ah ñii. Ah, am nga gan yu mat gan. yu mat yoo xam ne fu nu ne asalaamaaleykum fit yëpp rëcc. Hmm? maa la wax lii. <laughs> ñii ñooy conseil ku ne ci àdduna. maneem fay saal sa bo da leen jëloon conseil waaye. Ah. bu ñu waxee fit yi rëcc. Hmm? loolu rek a leen di yàqal. Eh, de maandu moo tax siiw xam nga koñ bi. Hmm? xam ne lu la wax suba ba ngoon jot fii ci kër gi ci koñ bi. Hmm? deñ ndax ñoom ñoo ko maîtriser ñoo teg dënnu koñ bi. baax lañ de. ndeysaan. moo <laughs> yemoo jël seen matuwaay nag. Uh-huh. balaa ngay dox ci mbedd mi di force sëy ci mbedd mi. Uh-huh. boo yeboo jël say matuwaay. xam li ngay <laughs> wax. xam li ngay def yaa ngi mel ah, <laughs> ko bëgg bëgg ko waxal lu baax de ko waxal yu bonam. pour mu mën a jubbantiku. <laughs> sañ wax rek la ñuy def de moytu leen dégg ngeen. waaw d'accord <laughs> seen kër gi nag ah, seen lu lu waaw fi de ah pourtant neex wax moom na daa mel ne xam na leen de ah. ah ñun ku ñu xamul suñu lu baax ci réew mi. Ah, nag la si dëgg neexul uh-huh. mais macha allah Ndumbe. Uh-huh. ñëwaat nga si kër gi waaye faaw ñu jàkkaarloo jàkkaarloo ak eh! ah waay waa ji ñëw na xaw <laughs> ma nag dangaa sañ ci xaw loo def bi waaye boo yegoo làmbaat sa tànk yi dellu fa nga jóge ndax kër gaa ngi boy xeetu boy boo xam ne nii ay boo duggee yow man xagal ma nii waaye yow tee ngaa réglé sa mboq ni ngay mel njulli yow lu xew ñaari seytaane yee ne ci biir te taa roo meer na kan ñoo ngi dëbb kër gi ñoo ngi jël lay maafe di dooma daa ci biir yan ñaari seytaane seytaane yi ñaar yan yan ñaar tata Rosemère na fi petit Bouddha ak jab noir malan ñoo ngi ci biir lu ñuy def ci biir kër gi toog ak numbe di wax moom lu ne nag tudd na lu ne ci yow ah saa yi nga dugg rek ñu wut pombiteer firit ko rek boole koog yow a des. ndax lu bari dalaa rëcc. Mhm. faaw ñu wax yow te li ñu gën a intéressé. si mhm. sa dërëm mii la. sa borom kër macha allah. Mhm. fi nga ko defee sax noonu la comme li Fatou Kiné wax. da ngaa jafe. bala ngaa ñëwaat si kër gi daj ne lu ne. woo na ku ne. ba ci ñun ñii sax bawuñu. ah la de. ñu ni ñun nag man mm. duñ si wax na dañ laa woo ba sonn jotu la waaye numéro sa numéro bi lu tax nga boo génnee si koñ ku ne di yooyu laa doon ma changé numéro nag. waaye yow boo changé nga say say ami d'enfance. say nit. dëgg la te ñun si say VIP. whatsapp sax waaw mm-hmm. xam nga waxtaan benn lay doon ndax maa kii amuñu réeroo. dëgg whatsapp nga ñu boole ñu joxe information. loolu erreur la loolu sama erreur la waaw beneen yoon du ma dal. parce ba nga ñëwee changé woo ci dara noonu laa ñëwee tëdd noonu ci kaw lal bi ah lan laa war a changer sama kaw lan. Ah, man laa bi mun soñoon nga changé ko. man laa bi hmm, néeg bi bu ci julli de. bu ma julli si néeg bi lu xew si néeg moom. dara xew fi mais dañ lay wax rek ndax dërëm. Hmm. ñun dañ koo xam. eh arrête. Hmm? gis ngeen dërëm nii munoo leen maa wax dara lu ma xamul ci moom ndax sama jëkkër la te ba ma takkee daa yàgg. tas tasoon nga nag. non tasuma damaa fayoon. boo yaboon nag topp ma nu ànd dox koor. ba heure ndog jot. waxuma loolu ñoom lan lañu wax ci man. yow xanaa doo dégg xam nga yow lii sa problème yow nit da lay dimbali mais doo dimbali sa bopp jaaral nii toppaat sa tànk seeti ñi nga seeti woon yëpp jaaraat fa buñ la xeloo fi def nga leen dara dama leen yëgoon yëga seet si waat rek ma seet si si leen. loolu jéem ñoom ñoom ci biir toog nii. xanaa yow toj ngay wax ñii dëbbate nanu kër gi waxuma la de dunoo dëbbate kër gi romb nanu toj waxuma toj ma ne ba xam ñoom ñaar waaw ci biir toog ba léegi waaw ñoom ñaar ngi ci biir kay Petit Bouddha lu ñuy def fii <laughs> ah moo dem fi nga demoon de <laughs> sañ-sañ nga nag xanaa ki yàlla am nga problème nag am nga problème yaa ngi mel ni ku menuisier métallique daanu ne noonu.